aborde nga question bu am solo muy développement d'un terroir parce que tudd nga Ferlo mm-hmm. parce que moom la ñu considéré comme la capitale de l'élevage hein même fekkee mm-hmm. Sénégal partout dañ fay def élevage zone Tamba c'est une importante zone Casamance buy euh, Kolda jàpp Sédhiou aussi c'est une importante zone d'élevage mais Ferlo ci Sénégal moom la ñu mas a considéré comme euh, la capital de l'élevage euh, xëy na ñun ñi nga xam ne nii dañuy dox tout le temps ci àll bi xam démb xam tey parce que man Ferlo maa ngi ko maa ngi ko jëkk a séjourné en def sama thèse de doctorat vétérinaire à Labgar defaat naa fa aussi ah voilà <laughs> def naa fa aussi 2001 ba 2002 à Dodji def benn mémoire de master donc xam naa Ferlo bu baax a baax xam fi mu toll woon ak fi mu nekk tey deux exemples rek laa lay jox parce que économie en fait secteur c'est secteur yu lëkkaloo la tudd nga tudd nga tëli tëli xëy nañu bët dañuy wax ni mais xamuñu importance am ci développement am na benn professeur euh, anglais bu ñuy wax euh, bi benn document boo xam ne FAO moo ko bindulu woon en 1966 1966 mhm. ci biir biir euh, document boobu étude boobu dañ si cité Charles bi boobu nga xam ne c'est un professeur en Angleterre mu ni fekkoon ne damay def développement de l' agriculture parce que livre boobu nan la ñuy def ba agriculture développée lañ ko tudde woon surtout ci pays en développement yi mu ni fekkoon ne benn affaire rek laay def pour développer agriculture mooy agriculture élevage au sens large mm-hmm. ay tëli laay defar suñ ma laajee ñaareel bu may def pour développer agriculture ay tëli laay def suñ ma laajee ñetteel pour développer agriculture ay tëli laay def kon tali yi am na solo malgré que ci biir document bi lépp loo xam ne technique la def nañ ko si. Mhm. pour wane importance su euh, transport importance su circulation ci mbay ak mbay ak sàmm ak développement en général. alors soo seetee tey exemple yi ma lay jox année yooyu ma lay wax ni nekkoon naa fa boobu ay piste moo fa nekk booba téléphone amul dala amul même soo yónnee da ngay yónnee ci horaire yi ab not ñu yóbbul la ko le lendemain ngay jotaat réponse wala le surlendemain boobu communication amul. en 86 mais tey soo jëlee euh, ferlo bi nga jël le ranch de Douli par exemple moom rek laay joxe avec le programme PUDC ak les autres projets de développement pour désenclaver le ranch on a mis 200 kilomètres de piste xam nga tey ranch de Douli désenclavé nañ ko avec piste Douli euh, Linguère 90 kilomètres Douli vers Touba 35 kilomètres pour euh, relier ko ak piste Touba jóge Touba Euh, Thiel ba Daara 66 kilomètres soo ko boolee lépp mu nekk deux 200 kilomètres de piste xam nga piste mu ngi jar entre vingt et cinq millions euh, estimé ko ba xam ñaata la. Dolli tey mosul woon am courant indi nañ fa basse et moyenne tension avec le PUDC jëlee ko fu sori indi ko. avancement am na Dolli def nañ fa ñaari forage yi gën a mag ci Sénégal ci àll euh, ci àll bi muy Dolli ak Tessékéré ñoom rek ñoo ko fi am forage deux cent cinquante mètres cubes xam nga forage yi ngeen gis yëpp pratiquement yëpp ay soixante soixante dix mètres cubes la. Mhm. deux cent cinquante mètres cubes heure avec un château d'eau de mille mètres cubes de contenance château d'eau yi ngay gis ci àll bi waxuma yu sone kii de SONES yi ah mais château d'eau yi ak mais château d'eau yi ngay gis ci àll bi pratiquement pour l'essentiel entre cent cinquante ak deux cent cinquante